mbokk yi jërë ngeen jëf ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant di leen ziar ci koor gi bu baax a baax di nuyu ñëpp nag di sant yàlla bu baax am mbégte toogaat fi di gërëm ñëpp waxoon na leen ni buñ fi toogaat yàlla na fekk ñu am président bu bees yàlla nangu na ko parce que bu ñu demoon deuxième tour dañuy xaaraat waaye daf mel ne ñaan gi ñaanoon korog bi ñu fiy jugee suñu borom defal nañu ko message bi ñu doon lancé. daf mel ne ñu doon déglu dégg nañ ko mooy waxuma la alternance mais man alternative parce que alternative moo gën a fort alternance parce que alternance mooy jële fi lii teg fi leneen mais alternative moo gën a yaatu maanaam ba ci doxalin yeeg yépp moo tax korok ñu lancé message bi ci 30 minutes chrono ci solution info TV di gërëm ñëpp nag di leen sant tey ñu dellusiwaat di fàttali ni démb suñu émission focus ci solution info amul daam benn patriote bu ma invité woon mu tardé waaw dama ko invité woon mu tardé midi demi laa ko waxoon presque une heure deux heures la fi ñëw man ko yéen falaw goo leen di tardé <laughs> moo tax ma ni ko demal quoi parce que aussi euh, média programme la dina la waxtu wi loolu tey il faut que ñu ciy bàyyi xel. ndaxte nag démb neexoon nañu woo neexoon nañu jot neexoon nañu invité foo leen mës invité ñoo fay jiitu ñoo yow sax ñoo lay jiitu ñoom kay ñoo ñëw di la xaar mu ni ma noo dama doon nalaw ma ne ko du ñàkk di coono campagne bi la coono campagne bi la bàyyiwul waaye sam dama doon wax naa say nalaw waruta euh, yàq say soxla nalaw du ngànt nalaw moom dañ koy dagg rek du ngànt ah? yooyu ñu ci bàyyi xel di l'essence bi ñuy lancé ñëpp ñu nekk ci patriote yi waaw bu leen nguur soppi waaw ñoom utuñu nguur way lañuy ut way way woowu nag bu ko dara yàq ci àddina ña leen doon woo téléphone démb na leen di jot surtout ça parce que combat bi Pastef gagné coalition Diomaye réew mi yëpp ñoo ko gagné c'est la combat d'une génération gars yi naan du élection mais révolution la c'est vrai combat boobu nan jàpp ni am na ñoo xam ne kenn xamu leen waxuma ñi nekkoon ci mbedd mi di xeex ba dugg kaso de ay mag ay ndaw am na ay sëriñ ay sëriñ ñoo xam ne dëkkuñ sax Ndakaar nag ci ay dëkk yi sori ci àddina li saxaar xaar nan saraxe nan ñaan nan pour rek projet bi egg à bon port ñoo xam ne xamuñu Sonko xamuñu Jomaay xamuñu kenn ñooñu na leen di bàyyi xel nan jàpp ni mbir mi du Pastef rek du masam du ma dem ba loolu il faut ñu bàyyi ci xel xale yi dugg kaso joxe seen bopp rey seen bopp def don de soi ni ko Ousmane Sonko di waxee dinaa dikk ci Ousmane Sonko Ousmane Sonko dafa jaral njukkal dafa jaral ñaanal dafa jaral fonk Ousmane Sonko cadeau la pour Sénégal Ousmane Sonko or la man loolu laa gëm sens la pour Sénégal aussi te dinaa leen wax lu tax ma wax loolu bu dee nii nguur Nelson laa xeex na ba jot ko def cinq ans doog a dem Abdoulaye Wade xeex na ba jot nguur bu doon lim du jeex nguur képp koo xam ne da nga mës a nekk rek ci conquête di pouvoir maanaam di xeex pour jot nguur boo ko jotee da ngay bëgg a nekk dans l'exercice du pouvoir maanaam euh, fexe ba yor ko yaa ko xeex yaa koy téye mais Ousmane Sonko bi projet bi di juddu boobu Pastef néew na doole loolu ci coalition jot na. engagement am tax ñu dàq ko ci impôt domaine du ma ci dellusiwaat un pour cent wala boog plus fort reste la nekkee député mais nekk benn député boo xam ne fay na téeméeri député à l'Assemblée nationale parce que c'était un député de qualité nit am na sa groupe parlementaire mais présence sam ci Assemblée nationale ak débat yi mu doon posé loolu taxoon na mu fees loolu ci Assemblée nationale mel ne leer ci biiru lëndëm kooku di Ousmane Sonko da dugg assemblée soppi débat yi def ko débat économique économique di waxtaanee comme pétrole gaz impôt suuf dans l' assemblée nationale mu doon lu bees dem ba gars yi attanuñ bi biir assemblée nationale cool Mamour Diallo jaar na fi. mu ñëw présidentielle en deux mille dix neuf am sept cent mille voix Ousmane Sonko quinze pour cent du jamais vu. pour une première koo xam ne mosul exercer pouvoir nekk dans l'opposition nekk un anti-système ñëw teg loolu mu jàll yàlla dogal li mu nar doonu lu muy wax parce que ñun tradition orale lañ yor ñun Sénégal danoo mun wax mais jëf danoo xaw a tële li mu wax mu bind ko ci livre solution wax leen ni bala ma joxe réew mi fii laa ko jëmee débat sur ressources naturelles pétrole dañ ko defoon tabu ba bëgg kenn bëggul ci wax yoo affaire pétrole Mohamed Dionne yàlla na wér ak jàmm dafa daan wax naan ku ci waxal sax ñu yóbbu la maanaam jël ko def ko affaire ay borom xam-xam ay technicien te pétrole boobu ak gaz boobu ak suñuy ressources naturelles zircon bi gisuñu ci dara suñ ko def ko un débat public ba tey ji ku ne mën ci wax combat boobu jural ko ñu jiñ ko briviole mais teewul mu xeex li ma naan Ousmane dafa xuus jàll kenn jàllalewu ko fu mu jaar ku fa jaar taq ban dinaa leen wax pour pourquoi may dellu si ci Ousmane sonk nii Pastef war woon fi dund ay jafe-jafe ci parti boo xam ne parti bu ndaw la di màgg ñu xëy ci moment bi gën a métti ci Ousmane Sonko ci mbiri Adji la coalition jot na tas parce que ci biir coalition bi daf ci am ñu war Ousmane Sonko dem gisee ak Macky Sall Ousmane jo démissionné ci coalition jot na mooy coalition bi ko moyen 15 pour cent yi parce que boobu ñi ngi woon ci logique gu affaiblir Pastef parce que danoo jàpp ni Ousmane Sonko mënul jugee plus fort des ñëw am 15 pour cent kon ñi ko waroon nan fexe ba dindi leen mu dese ngorom ak diineem askan wi tam wóolu ko jox ko bopp ba bis ñëw ñu dugal ko ci kaso bi li fi jaar bari na. parti bu tas ay bakkan yu faatu ay nit yi exilé Papito karaa ñi ngi koy ñaanal bëggoon na mu fekkee lii ndax bokk na ci ñi ko xeex ba mu egg fii loolu tax ñi laaj post naan maa gañee commune diw commune diw xanaa xalaatuñu Papito karaa xanaa xalaatuñu xale yu faatu mbir boo koy xeex ba mën ko nettali rek loolu rek doy na sant ndax am na ñu la gënoon jàmbaare ci xeex bi gënoon la ci def ay sacrifice ñoom faatu na ñoom duñ ko fekkee te duñ ko jariñoo du ñàkk ni seen njaboot gi fi des dinañ jariñoo kombaa bi tey jii yàlla di dogal ba bis ñëw Ousmane Sonko ñu setal ko bàyyi ko mu génn lu tax man leen Ousmane Sonko du Mandela du Ouattara du Thomas sànkara du Abdoulaye Wade lu tax ma loolu ñu bari dinañ ne dinaa exagérer du. président Rwanda Paul Kagame ñoo ñëpp ay xeexkat lan bañ ay bakkan rot mais bi bi ñu defee bi ñu conquérir le pouvoir ñoom dañ ko téye ki dafa xeex ba conquérir la pouvoir joxe ko loolu tax Ousmane Sonko li tubaab bi naan tout honneur mais tout seigneur Ousmane Sonko da nga ko war a tóojal tóojal parce que théoricien yi may wax ay théoricien xamuñu dara. parce que jamono weddi na leen mooy ñoom seex Yérim Seck je peux le citer parce que da am benn baat bi muy wax mooy nguur kenn du ko saraxe nee na mos na dajeeg Abdoulaye Wade wax ko ko ma ne ko yaa lor Wade nee na wax na ko Macky Sall kenn du ko saraxe kenn du ko maye mais le pouvoir na se donne pas sur un plateau d'argent mais boo ko mënul joxe dañ koy foqati alors que joxe ko moo gën ñu foqati ko ci yow parce que foqati dafa diis parce que doolee koy def mais exercice de force la yàlla dogal usmaan génn kaso bi te avant mi génn mu joxoñ candidat Bassirou Diomaye fay loolu mooy ngor maanaam moom doon de soi bi mu doon wax nit ñi mooy ku ne na nga bàyyi fàtte sa bopp jiital réew mi mais Ousmane moo ko njëkkee ci xeex yi mu xeex ba egg fi mais nguur gi mu jox Diomaye Faye le mérite revient à Ousmane Sonko man du ma fi nekk di wër-wërloo. c'est la victoire du peuple peuple bi ci lan mais pour que nga am peuple bu taxaw il faut que nga am un leader charismatique un leader historique un leader politique maanaam li ñuy laaj ci leader yëpp dafa nekk ci Ousmane Sonko dama mësa laaj benn kilifa c'était en 2012 mu ni ma pour être un bon président de la République il faut être un leader charismatique historique politique et traditionnel Ousmane Sonko ñëw gëm naa ni dafa matal yooyu yëpp loolu nag c'est un don de Dieu parce que jaarul PDS jaarul PS xam ne yi dina la wax ni sax sama papa jaar na partie socialiste moom dina la ko wax mais Ousmane Sonko du la wax ni sama papa jaar na fii du la wax sama yaay jaar na fii Ousmane après le communisme le socialisme la libéralisme mais Ousmane moo créé en Afrique le patriotisme le patriotisme maanaam loolu idéologie yamu ko ci patriotisme sénégalais mais le patriotisme africain bu leen fàttali ni Pastef dañoo modifié waat parti bi changé les structures gën ko yaatal ci ñun ñooy Madiame Mbodj ñoo ñëpp da leen war rendre hommage ñoom Yacine soxna Yacine ak ñeneen ak ñeneen parce que on a tendance à les oublier mais dafa am ñoo xam ne ay docteur bu ma jumul docteur Diallo Diop. ay mag yoo xam ne dañ fi nekkoon ñi bokk PA yi ñi bokkoon ci Cheikh Anta ñi bokkoon ci Mamadou Dia mag ñooñu après ñoo dugg Pastef loolu tax théorie plan B wu Pastef bu ma juumul Diallo Diop moo ko njëkk wax Sud FM bu mu ko waxee ñëpp ŋàbb ko mais Diallo xamoon na li muy wax parce que mun ñu woon dem sans candidat lu tax ma la Ousmane dafa am mérite biñ ñëwee nan uti parrainage moom dafa uti. mais mu tasaare parrainage yi bi nga bi ñuy wax deux cent et quelques yi jël ay parrain ñoom dàmboo jëg ñépp Ousmane yebal ay nit ñu dem jëli bi ñu demee ba war a tànn mu tànn ñoom El Malick ñoom diw ak diw Jomaay Cheikh Tidiane Dièye jël les onze députés de Pastef la générosité de Ousmane jël un koo xam ne il incarne le système c'est l'incarnation du système Habib Sy Ousmane na ko demal jël looloo tax bi mu génnee kaso moom Ousmane ci conférence de presse bi mu def ak Jomaay comme photo bi mi ngi ciy rendre hommage Habib Sy na mag mu yaru la mais mag mu xam li muy def la te loolu mu waxoon dëgg la ndaxte bi ñu demee ba tànn jomaay war a dem élection moom ak Cheikh Tidiane yëpp danoo racceeku ku mel noonu nag di Ousmane Sonko ak générosité boobu jàngal ñu ci politique lu mës a jàng lu mës a xam loolu gëm naa ne téere yi ci àdduna bi dinañ ko mës a dinañ ko mës a teg jàngal ko seeni i élèves jàngal ko seeni xale ci àddina bi mooy modèle politique bu Ousmane Sonko indi Pastef nekk un parti boo xam ne Ousmane Sonko lépp loo xam ne da koy digal moo ciy jiitu don de soi boobu patriotisme moo leen ci jiitu bu dee ci xeex ci combat moo leen ci jiitu bu dee jomaay mu ni ko projet bi da laa soxla yaay secrétaire général bi fexeel ba tëgg parti bi defar les structures parti bi taxaw dëgër loolu tax travail de l'ombre bi loolu tax ñu naan Diomaye c'est l'architecte du parti maanaam fondement wu parti bi moo ko tëgg bu leen fàtte ni Pastef Ousmane Sonko créé wu ko ñoom Diomaye ñoo ko créé dénk ko Ousmane Sonko usman Sonko defal leen leen parti bi ba mu jekk xeexal leen ba mu xeex ba xeex bi mat Ousmane Sonko jël parti gañe nguur jox leen xam na loolu loolu yombul maanaam da leen a xeexal xeexal xeexal maanaam ci combat yëpp parce que aussi tamit ci combat yi Pastef mos a seq peut-être jomaay ci suuf mos nañ ko invité wal fajri jomaay ne lu tax du ma wàcc ci mbedd mi di xeex parce que fan ma soxlaa du ci terrain bi di xeex loolu daal bi nu ko jàppee jàpp Fadilou Keita Ousmane Sonko da leen a mere parce que dafa na leen fi ma leen soxlaa wóoroo leen jébbale seen bopp ba leen di jàpp ci kaso. li jëm ci combat bi ci terrain bi bàyyi leen ma ko man ak xale yi kon boobu mu ngi soor lii te lii ñëwagul parce que aussi un combat intelligent aussi nekkul ni da ngay dem ci combat ñu jàpp ñëpp wala ñu rey ñëpp même boo ko gañee sax mais le projet kan moo koy porter loolu dax ku mel noonu dañ ko war a rendre hommage un hommage très mérité teg ko ci kaw tam tamal ko maanaam bu mérité woon lu ëpp président da nga ko ko war a jox moom Ousmane Sonko dama ne Diomaye mën na mat président mais Sonko est-ce ëppul président parce que Sonko loo ko bëgg defal da nga koy xeep loo ko bëgg a jox da nga koy xeeb looloo tax tey jii ku naqadee jox poste lay doon mais heureusement ku doylu la Ousmane Sonko dama gis gars yi sol costume ci benn hôtel lañ dugg Ousmane sol la Sonko def blouson ak capuchon quoi. nga xam ni blouson ak capuchon li muy firndeel mooy au travail ci liggéey lañ jëm looloo te des fois bu gaa yi naan ay sance ay solo ay sikkam bu nu watoo ak bu nu watul man leen mais ñii ñu ko liggéey leen tal xaaruñu leen ci ñii sance ñu leen di gis wala ñu leen di naw naan diw rafet na ak diw xees na diw ñuul na c'est pas te lu tax ñu mën leen a wóolu ne dinañ doxal parce que fa ñuy jàngalee état fa lañ jàngalee ba mokkal te du benn ñuul ñuul boo xam ne mun nga ko génnee ci Ousmane Sonko wala nga génnee ko ci Jomaay Fay mooy ba nekk impôt domaine enaa lañ jàngee école nationale d'administration foofu du n'importe kii moo fay jàngee mais du n'importe kii moo koy génnee te génn ak loxo yi set nag. te Sénégal bu dee xam-xam Macky ñàkku ko ah bu dee Abdoulaye Wade ñàkkul xam-xam Senghor Abdou Diouf mais loxoy set lan soxla ku jub ku maandu mais koo xam ne day fàtte boppam jiital réewam te loolu lépp Ousmane Sonko dañu koo jàngal te lu tax ma jàpp ni li ñu sumb mën na egg ak jàmm mooy Pastef bi mu juddoo yàggul mais mooy parti boo xam ni dañ ko structuré structure yi ni mu dëgëree ba Pastef bu nit tukkee sax nit mun ko remplacer mat li mu doon da ngay xool bi secrétaire général adjoint bi jëlee intérim bi di Ayib Daffé bi Diomaye duggee kaso mais Ayib Daffé mais da ngay gis beneen personnalité El Malick malgré li coow li di bari bari bari ñiy jàpp nit ñi kaso parce que nag dëkk bi am na benn jamono tey tey wax neex na de. mais am na benn jamono wax nag metti woon na surtout nga yor porte parole parti bu mel ne Pastef ñu xëy na la tëj nañu leader ya mille jeunes ñi ngi ci kaso yi tas nañu parti ba yow nga war a continuer di wax ci turu parti bi loolu da El Malick yor ab bracelet électronique sa tànk ñu lay xoqatal fu ne jël charge yéen tegoon usman Sonko yëpp teg leen nga continuer la nga doon wax ci biir Ousmane Sonko di nekk ci biti nga kon ne di ko wax loolu daal dama jàpp ni Pastef liggéey bi gënoon a metti bi bi parti bi nekkee ci difficulté El Malick moo ko yoroon parce que boobu réew mi dafa jafe waxee parce que moment bu ne mën na la xoqatal jël benn épée de dama Damoclès teg ci sa kaw ñooñ ñëpp da leen war a rendre hommage tey ji Ngagne Demba ture dem mais c'était une une bonne stratégie dem te xam ne parti bi dafa soxla communication mu génn réew mi dem Mali continuer di communiquer pour le parti parce que li ñu bëggoon mooy tëj ko kaso pour que du defati communication parce que communication bi mu doon def baaxuloon ci gaay yi parce que lépp lu gars yi mës a laxas ci wàllu yoon rek moom da ka daan làqar ci loolu da bari na juriste yi nekk ci réew mi dem na ba nangootu nu mën a toog ak moom lu Ismaïla Madior fal ak ñoom Antoine def ci tappale rek bu ñëwee moom dina ko décortiquer maanaam Pastef bi Ousmane ko di def conférence de presse bi mujj wax na ko na il faut que ñu jaajëfal les patriotes parce que li parti bi daj ba tey fi mu toll parti bu ko dajoon ci réew mi tas nga wala nekkatoo mais Pastef kon ne di fi ne kon fondement yi fondement yi dëgër na li wolof naan bu teg ab tegale bu jubee te daanu boo jiitu moo jub teg ci ñu enrichir le débat politique ñu enrichir ko au Sénégal mooy ay cadres yi nekkoon dans l' administration il faut que ñu xam Pastef lan moo ko créé ay cadres ñoo nekk dans l' administration nekk domaine nekk trésor ñi ay enseignants ñi leneen ak leneen gis ni ñoom buñ politikul ay politique ñooy politique décidé pour ñoom di jël ay décision yoo xam ne baaxul léegi ñoom ñu dugg ci politique pour dindi loolu yàlla nag dimbali leen ci malgré liñ ci dund yépp ñu fexe ba ñoom ñoo ñu nekkoon dans l'administration ay parce que da nekk dans l'administration toll ni Ousmane Sonko toll ni Diomaye mais ñu fal ab politicien boo xam ne xamul dara mu ñëw di la jiite di décider pour yow di sàcc xaalis bi di dem boo ne ko tegal fii mu bañ gars yi na nag fii boo politiqueul ñu politiquer la wala ñu politique la ñu ne système bii nag muy doxee mooy ñu jël mérito méritocratie jël diplôme teg fële jël kàngam teg fale nanu fexe ba loolu lépp ñu dindi ko nun koy dindee mooy mbir boo ko seexloo doo ko lijjanti mais dañuy dugg ci politique bi loolu tax bi Pastef ñëwee le débat politique dafa changé parce que li su Ablaye Macky Sall doon nappee opposition bu njëkk ba mooy débat politique ñeme leen ko mais Sonko ñëw à la surprise générale imposé ko débat politique ba attadoontun ko ñu indil ko mbiri Adji Sarr loolu tax Ousmane Sonko dafa jaadu woon ci sama introduction ñu rendre ko un hommage mérité hommage léegi nag li ñu war a maytu mooy seytaane yi ak naafeq yi yoo xam ne ñi ngi bëgg a créer loo xam ne amagul ça veut dire que vue de l'esprit la seen xel rek la ne mooy Mamadou Dia Senghor 62 alors que les contextes ne sont pas les mêmes Mamadou ni ñu faloo ak ni ñu jotee ci réew ci jamonoy indépendance ak ñii xam ne Mamadou Dia Senghor danoo tëb rek nekk ci exercice du pouvoir mais ñii danoo nekk ci conquête du pouvoir balaa ñuy dem ci exercice du pouvoir ñu jiite seen parti parti bi dund ay difficultés yu bari ni ni téye Pastef ba mosoo dégg ñu ne Sonko ak Jomaay réeroo nañ Sonko ak El Malick Sonko ak diw angi diw mbiri aji Sarr ñëw ñoom ñëpp mu jaroon tey jii ñu weddi Ousmane Sonko ñoom ñoom ñëpp mu jaroon ñu weddi Ousmane Sonko ci moment boobu ñu renouveler ko seen confiance ba ànd ak ñoom dugg ci kaso nagam Pastef la ñu tasul ñoom du ñoom ñooy xëccoo di tas réew mi. parce que Pastef moo gënoon a fragile parce que jamono am na benn jamono tas Pastef yomb na mais li muy wane mooy am na ay nit yu mat parce que bu leen neexoon ñu ne son ko dénk na mënuñu la dénk suñu parti dénk la projet bu toll ni ngay dem di maase wu ji ba lii di la ci fekk mais mosoo dégg ci Pastef ku ko wax wala am am na benn jamono seytaane yi di di théorie naan dafa war a démissionner ci bopp parti bi moom Ousmane ko dafa war a démissionner ci bopp parti bi ba ñu leeral mbir Adji Sarr boobu yëpp ñu ngi ci ruube bi mais ñoom jomaa yi ñoom El Malick ñoo taxaw na ko yow la ñu wóolu même bi ñuy ut candidat ñoom ñoo ñëw ña ko yaay suñu plan A Z amul ku mës a jug ci Pastef mun a Ousmane Sonko warul doon suñu candidat parce que dafa nekk ci loxo yoon moom moo dem ba ba jëmmi jamono mu tànn jomaay te bi mu tànnee jomaay tey gi kenn contesté wu ko te bu buñ ko contesté woon woon ànduwuñu ci du doon président de la république mu génn jiital ko ànd ak moom campagne ba teg ko ci bopp réew mi tey ci ndimbalu yàlla ak ci ndimbalu askanu sunu gaal parce que nag bu ko usmaan bëggoon askan wi la ko déedéet du am loolu tax usmaan Sonko c'est un grand monsieur loolu tax Ousmane Sonko. li may wax Diomaye fay mooy na fonk Ousmane na ko déglu parce que am Ousmane sonk ci sa wet sens la c'est une sens bari na ñu la topp du Diomaye de Ousmane la la bëggee Ousmane dafa joxañ ay maire maireu Dakar ak maireu keneen ak keneen ñu fal leen Ousmane joxañ ay député ñu fal leen mu joxañ la ñu fal la ana ana député yi jàppoon ni ñoo fal seen bopp tekkeetun dara ci réew mi ana député PDS ya bañoon mujj na noon nangu ba ñëw jàpp ci projet wu Ousmane ana maire Barthélémy Diaz mi jàppoon ni mooy borom ndakaaru moo fal boppam tey jii gars yi wan nañ ñu ko Ousmane la faloon keneen ak keneen jarul lim ana ñu ne woon projet bi baaxul tey jii ñoom ñoo ñëw dugg coalition Jomaay jàpp ci projet bi pour mu dem parce que nag. Ousmane Sonko du sondeel ba ñu koy ëf muy fay li naan dëgg mooy mujj mais tey jii dëggam googu mu doon wax tey jii suñu borom fekk na ko ci mais askan fekk nañ ko ci mais ñi muy lëngool ci politique fekk nañ ko ci man nag du ma fi nekk naan ay premier ministre ak ay conseil nañ ko fal Ousmane Sonko man loolu nekku sama loxo sama yoon nekku ci mais Ousmane du ku ñuy piste Ousmane ku naan jàkkale di ko xool du ku ñuy cof ku ñuy ŋëpp la Diomaye Ousmane Sonko mooy sa doole yaay président de la république mais bu la kenn dugal ci leneen parce que Sénégal la ñu ne pourquoi ñuy wax yi Sénégal la ñu ne am na ñoo xam ne danoo mën a sibooru am na ñoo xam ne lu bees lañuy bañ a gis dina am ñu ñëw na ko mais parti Pastef yéen a ko tëddoon dénk ko Ousmane ko de war a jëlaat parti bi de wala parti bi léegi danoo war a xool de parce que munoo nekk président de la république ba pare Ousmane ko bëgg a nekk di wéy di nekk président parti bi parce que un président de la république est-ce que nii nii kërëb kërëb parce que temps yi ñi ngi génne benn rumeur naan ci secretaire général parti bi Diomaye dafa démissionné mais dégg naa Ousseynou Ly weddi ko. mais Diomaye dafa war a démissionner ci secrétariat général parti bi bàyyee Pastef Ousmane Sonko muy dëgg ñu jël beneen secretaire général fal ko bu dee Ayib Daffé wala keneen ak ku mu doon ci ñoom loolu seen mbir la parce que loolu day am les mêlées mais day am conflit d'intérêt bu nekk président nekk secrétaire xam na texte yi waxul. dafa waxoon njiitu parti bi le président du parti bu nekk président day démissionné ci parti bi mais bii dafa am benn contexte bu am mooy le président du parti Ousmane Sonko Ousmane Sonko le président du parti démissionné wul moom bii loolu tax mu graaw moom faluwul nekk président kon moom mënul démissionné day wëri di jiite Pastef mais le secrétaire général texte yi waxul loolu mais par élégance mais aussi pour que nga gën a mën a liggéey pour mu bañ am benn conflit d'intérêt pour nga mën a maytu yenn nit parce que bu dul mën nañ dem ba jëmmi jamono parce que Sénégal dafa am ñoo xam ne ay pouvoiristes lañ te les patriotes nag ils ne sont pas tombés du ciel jugewuñu ci asamaan si ah ay nit lañ comme ñëpp bu jomaay wéyee di am ay poste ci parti bi te boo nee secrétaire général mooy koo xam ne tey jii tout le travail moo koy def teg ci nekk président de la république ak sas yu la dénk ci réew mi waloo tal di nekk secrétaire général parce que nekk secrétaire général dafa metti parce que yaay lijjanti poste bii bu ñaari xuloo yaa lijjanti loolu ay détails la. pour man nan fal keneen ci Pastef mu lijjanti loolu Diomaye lijjanti réew mi léegi nag mun na nekk un membre simple de Pastef parce que bu ñuy wax Pastef nag Ousmane Sonko moo tax am ñëpp jàpp nañ ci mais nit ñi Ousmane Sonko lañ jox bopp sens bi Diomaye am mooy moom mun na rocceeku nank di def liggéeyam ci réew mi nekk le président de tous les Sénégalais loolu nañ ci bàyyi xel. loolu tax bi rumeur bi génnee ñu naan non secrétaire général da ci war a démissionner même bu ko teg si waxul da ko war a démissionner pour maytu yenn yi parce que fépp fu seytaane mën a jaar ba prox ndol ba yàq rek dana war a fàttu foofu bu boobaa Ousmane sonk di doxal parti bi te atton na ko te mate na ko Ousmane moom moom bul sonn mayu yàlla la am loolu il faut ñu xam. léegi nag ma ñëw ci patriote yi démb ak barki démb ak démb am na sa journal yi génn naan noo paccoo bi ak séddoo bi ji nga nit ki mën na la sédd ci gaalu xaj bu ci lekk de ji nga état la Nelson Mandela waxoon ak ay dëgg man nag damay bëgg di wax dëgg waaye du bëgg di wax li ñëpp bëgg a dégg état ñi koy xeex du ñoom ñoo koy jariñoo te loolu mooy lu normal parce que mën xeex ak mën wax ak mën liggéey du benn dangay dégg ku ne la noon def naa ci sama bakkan def naa ci sama liig fii ku ne am na lu mu ci def pour que li am mais un président de la république bis bu faloo dafay nekk le président de tous les sénégalais certainement bu dee taxawal nañ gouvernement wala ñu taxawal ay post wala ñu commencé jox ay direction y aura des frustrés mais on ne peut pas vouloir quelque chose et son contraire parce que tey jii yéen a ngi gis ñu ne le train de vie de l'État dañ koy wàññi ba ci fonds ya ca ah, pale li jëm ci conseil économique HCCT au conseil dialogue social yooyu yëpp dañ koy dindi. dina tax réew mi économiser ay milliards yu bari loolu nag buñ koy wax mooy mënoo def omelette te tojoo ay nen il faut mu am ay conséquences ay nit yu ci yàq seen liggéey ay nit yi ci ñàkk lii ay nit yu ci ñàkk lii te buñ jógee ci loolu am na lu ñu waxul te Macky waxoon na ko en 2012 waaye mujj ko eggale mu audit de l' administration ñu audité administration bi xool ña fay liggéey ñooy nan ña fa war a nekk ñoo fa ne wala danuy caser la clientèle politique du ñun lan la doon caas. ba ne anti système lan parce que système bi mooy lan nanu gouverner nanu xeex ba jot ci nguur bi ñuy gouverner ñu paajoo looloo tax ñi ma gis ñu nekk dans les réseaux sociaux li Sa Ndiogou doon wax démb xaw naa ko gëm mooy peut-être man gis sa bi mu ci am mais bi saa waxi ibbi na sama xel fenn mooy est-ce que patriote yi dëgg-dëgg ñooy def loolu commencé di laaj ay poste commencé naan nañ ñu falal diw nañu ñu falal diw ñoo ñu falal diw c'est pas ça warul doxe noonu parce que aussi pour nga occuper yenn postes yi dafa am yenn hiérarchie yoo war a ne sa njàng daa am fu war a toll daa am ko war a doon yooyu yëpp dañ ci war a bàyyi xel kon tey ji émission mi ngi jeex leen rek la sàkku ci ñëpp mooy nit ki doo ko jiital di ko fakastan fal nañu jomaay fal nañu projet bi tey jii nag lan war a gën a sauver la projet te sauver la projet xam mooy lan ñu jël intérêt général teg ko ci liy defar Sénégal bu ëllëg ba bu ñëwee 2029 les gens doon wax naan yéex nañu fal jomaay yéex nañu porter le projet au pouvoir mais tey jii bu dee ni dañ naan système ba pare di bëgg am le mêmes comportement que ñiñ fi jëlee loolu day indi déception ci Sénégal te loolu warta am te bu leen jàpp ni yéen patriotes yi yéen a fal Ousmane ko mais dafa amay ay sénégalais yoo xam ne ñoom duñu politique faluñu falu ñu fenn sénégalais yooyu koy lan la leen wala récompenser mooy dund gu seer justice am ñu fexe ba réew mi tëddee njaaxaanaay alalu réew mi di dellu ci waat ci sénégalais yi ak baadoole yi ñi amul xiiq am ko bu boobaa ñëpp yëg ni réew mi neex na mais bu dee benn benn ñoo ko yëg rek day mel ne la fa li fi newoon jugu fi mu doonoon un message boo xam ne tey dañ ko indi woon. benn di rendre hommage Ousmane Sonko mais aussi di wax ci perspective yi looloo tax bu ñëwaatee ci beneen jamono fekk prestation de serment yi am ak yooyu dinañ gën a waxaat ci élection yi ñu jàll ak lan moo waral les résultats yooyu yëpp dinañ ci indi suñu xalaat di gërëm El Hadji Modou Diouf Abdou Top Abdoulaye jàlloo di gërëm ñëpp di leen sant kon beneen alxamis rek incha allah ñu fas yéene dellusiwaat ci solution TV Omar Bun Khatab Gueye moo nekkoon ci kàddu gi yi jërë ngeen jëf.